Gbogbo ló

في يكو قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبصر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ajran hasana dadi len xamal ni ah, bis bisunu bisa bis bisunu bisa moo tax nu bàyyi sunu yitte dik and ko ak yeen moo tax nu bàyyi sunu yitte dik and ko ak yeen dekk bi nak ne dekk bi nak sunu xel gën dal bu baax baax ne sunu xel gën dal bu baax baax ci and bi nga xamni ne sin ci and bi nga xamni bi and nañ ko and nañ ko ak benno gi ak benno gi ak soppante gi ak wóolonte gi. ak soppante gi ak wóolonte gi. yàlla na yàgg. ne yàlla na yàgg. ndax dëkk bii di kër Assane. ndax dëkk bii di kër asan ah, ku leen xam. ku leen xam. ci nangoo liggéey ak jaamu yàlla nga leen xam. ci ak jaamu yàlla rek nga leen xam. ak soppante. ak soppante. bay benn. ak bennoo. ah gone yi ku leen gis. nee gone yi ku leen gis. ah ni ñu booloo. nii ñu booloo. maam El Hadj maam El Hadj ak Serigne Touba. ak Serigne Touba. du ñaari jëm jëm rek lañu won du ñu ñaari jëm mu ben rek lañu won ah, ba taxna na. ba taxna na. Ah, Serigne Touba waxon le Serigne Touba waxan. ci ak bok ci ak bok mo fi ne. ne mo fi nek dom day dafa waxoon ne bokk ñett rek la. ne dafa waxoon ne bokk ñett rek la. muy mbokum jige ñaale. muy mbokum jige ñaale. mbokum talibé mbokum talibé ak jabar bi nga dekkal ak jabar ji nga dekkal jambour bi nga dekkal jambour bi nga dekkal muy sa bokum jige ñaale. muy sa mbokum jige ñaale. da ngeen di bokk yéene. da ngeen di bokk yéene. bokk pexe. bokk pexe. bokk lu ngeen am. bokk lu ngeen am. sa mbokkum taalibe. sa mbokkum taalibe. ngeen soppante. ngeen soppante. wóolante. wóolante. tey dimbalante. tey jambur bi nga dëkkal. jàmbur bi nga dëkkal. bul ko xeb bul ko xeb bul ko bañ. bul ko bañ. bul ko yab. bul ko yab. lo rek mo am solo. ne lolu rek mo am solo. yalla yalla sienufon. sàmm leen. yalla na yàlla sàmm leen. ar leen. aar leen. fan. gudal seeni fon te lépp fi ñaan. ci lepp luñu fi ñaan. suñu borom nang ko. suñu borom nang ko. ñaari kilifa. muy Serigne Aliou Ndiaye ak Serigne Hassan Mbaye. muy ñaar ñoo xam ne dañoo am lante woon wëllëre wëllëre gu dëgër gu doxoon seen diggante ñu fas faslante woon wëllëre googee ak sëriñ Mudu Jóob alxuraan di way juróom ndax sababu li ko indi woon ci dëkk bii foofu la jaare woon moo tax nee na fàttewut ñaari kilifa yi benn yoon ci ñaan moo ngi ñaan yàlla dolli seen yërmande dolli seen njëggal te waxtu wi ñuy wax ak yéen àjjana di seen dëkkuwaay moo ngi koy ñaan baax nee na mi ngi tàmbaleeb nuyoom ci kilifay dëkk bi tàmbalee ko ci kilifa gi sëriñ Aseynu Mbay sëriñ Moustapha Mbay sëriñ Abdoulahi Mbay alaaji sëriñ Ceerno Mbeng sëriñ Abibu Mbeng sëriñ Malick Mbay sëriñ Muudu Mbay sëriñ Saalihu Mbay sëriñ Taala Mbay xam naa bu ñu bëggee lim ñëpp ci xataayu jamono dana xaw a jafe moo tax ñu ngi nuyoo ñu ngi tam teg nuyoo bi ci loxob kilifa yi mu yóbbaale kilifa yépp di nuyu ilimaan ji muy imaam sëriñ baabakar ndax ab dëkk boo fa duggee boo siyaaree boroom dëkk ba ak kilifa ya wala siyaare sëriñ sëriñ mbay imaam Serigne mbay kon noo ko bu baax di teg nuyoob daara ji ci loxaam di nuyu bu baax association bi nga xam ne moo taaral jotaay bi te bi mu ñëwee ba léegi mu fekk leen ñu taxaw te tooguñu benn yoon mu mel ni am na ku ko fi wax léegi na mbir bu naree jëm kanam ndaw ya ak jigéen ya ñooy takku ba dëgër fas yéene mu jëm ca kanam te loolu feeñ na ci dëkk bi sëriñ Touba ak sëñ alxaaji Malick lañ jël bis bi ñu séq ko muy jullit yi rek ndax alxuraan moo ne innamal moom noonu ixwa ñépp ay mbokk lañu ndax jullit yi moom ñoo bokk alxuraan bokk ponk lislaam yépp ni ñuy jullee ñoo ko bokk ni ko sëñ Abdou Aziz si daan wax ci waxtaanam rek boo demee Touba na ñuy jullee ndax dañuy jël seen dañuy julli jël seen i tànk féetale ko kaw ñu ne déedéet mu ne boo demee Tivaouane ndax bu nu julli dana jël seen tànk féetloo kaw mu ne déedéet boo demee Fass noonu kon li mu bëgg wax mooy lislaam ji lépp benn la kon dëkk bi tamit day dox ci loolu loolu lu am solo la xam ne l'islam moom noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andee ndax bi mu ko andee moom dane jullit ak moroom ja dafa war a mel ni am miir birig bii ni muy jàppe ci moroom ji ñu taxaw taxawal jumaa ji taxawal jàkka ji taxawal daara ji jullit yëpp noonu la war a mel ci bennoo moo tax alxuraan ne innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum julli yëpp dana war a doon benn looy am nga yéene ko lu mu amut nga fexe ba mu am ko bu ko bu feebaree julli yëpp boole seeni xel seen xam-xam seen lépp fexe ba mu faju bu amee ku faatu ñëpp taxaw ci rawatina dëkk bi fexe ba loola mu oyof toy ci moom bu fekkee lu mel ne ki aj màkk ñëw na ci moom wala takk soxna wala lu mën a doon mbooloo daal mooy lépp moo tax ñii xale yi def àndandoo di taxaw dëkk bi tudde ko ànd suqali kër Assane loolu lu am solo la ñu ngi leen ci laabiire ngeen gën koo fonk xam ne mbooloo ñaar ah, yonente bi moo ne aljamaa rahma mbooloo moom mooy yërmande bu ngeen booloo rek mën ngeen a dem ba dëkk bi ngeen fi indi ay yoon di ko defal seen bopp dem bay gas ay forage ci bu ngeen gëmee seen bopp dem bay def ay taxawu daara ji defar ko ay daara dem ba am ay institut yoo xam ne si nii xale yi dañ fiy jànge ca kenn du joxe dara ak i juma ak i ak fajukaay loolu lépp la koy waral mooy at mu ne ku ne génn weer wu ne ku ne génne dara doonte juróom la bu leen ko xeeb bu leen ko dajalee bu yàggee rek lu ngeen bëgg taxawal na ngeen ko taxawal ndax da ngeen koy bañ a tëkk ci fukki at wala ñaar fukki at wala fanweeri at da ngeen koy tëkk ci doonte juróom fukki at sax fexe leen ba loolu taxaw boo ci defee itte rek suñu boroom moo la ciy fekk si boo tàmbalee rek nit ay ñëw yeggali ko kon nag loolu ñu ngi leen ci laabiire bu baax di ñaan suñu boroom gën a. wax naa ko guddul benn yoon du ñaari yoon ndax man ci ay groupe politique laa bokk naam mais dañu naa ko budul benn yoon du ñaari yoon man leen département Tivaouane bokk na ci département yi gën a dellu ginnaaw ci wàllu ni nga xam ne ni la état bi di saytoo mbir yi. xëy na nag suñu tànk guddul mais am na fu xaw a bari ci réew mi foo xam ne teg nañ fi suñu tànk li ci jiitu nag jafe-jafe nga xam ne am nañu ko fii nga xam ne dafa concerné commune bu Meewaan ak commune bu Daaru Xuduus li ci jiitu mooy wàllu réseau réseau bi man wax naa ci guddi wax naa ci bëccëg ci groupe yi nga xam ne bokk naa ci keroog rek maa ngi wax dàmbay mi nga xam ne am nañ ay groupe yi ñu bokk ma ne ko xam naa man gars yi dina mujj génnee ma sax groupe yi ndax bis bu nekk maa ngi koy fay kaas di ko wax parfois ak ton bu dëgër mais sama xol moo dul neex réseau téléphone bi bon na fi bon boo xam ni kenn mënu fee am crédit téléphone woote ni nga bëgg sa internet mënoo ko utiliser wu ak fi jamono toll nga xam ne fi ñu toll nii moom internet mooy doxal lépp danga nekk fii di wax ak ku nekk France di nga wax ak ku nekk New York di nekk fii di wax ak ku nekk fu nekk daal ci àdduna bi. kon donc réseau bi moom wax dëgg fa ci yàlla na ñu ci dimbale wax naa ci guddi wax naa ci bëccëg woote naa ci ba sonn mais wax dëgg yàlla ba fi mu toll nii amaguñ ci benn solution donc am na nag ñoo xam ne man naa ngi ciy déggante ak ñoom mais comme sama loxo jotuwul fenn fii donc loolu rek laa ci man di leen ko fàttali chaque jour mais nag comme yow mi xam ni xëy na mën ngaa dem ba ci su ma juumul ARTP ñoom ñooy saytu yu mel noonu ak ñi nga xam ne ak directeur orange bi nga xam ne ñoom ñoo yor réseau téléphone bi fii ci Sénégal kon loolu ñu ñu ngi la koy yónni nga baal ma nag ci kàddu gi waaye noonu lañ ma ko waxee noonu rek laa la ko mën a waxee. ndox tamit am nañu problème am forage bii ci suñu ginnaaw nekk fii ci pëleen ndédd forage bi wax dëgg fa ci yàlla bu xellee ñetti fan dina toog weer du xoyli loolu benn la. Euh, facture yi seer na de trop ndox li ñu koy jaayee fii dafa seer de trop ñu ngi nii ndox mi un an bi li limité trois cent soixante cinq jours yi mën naa wax ni cent jours képp la ciy xelli kon donc yeneen deux ans quelques jours yi ci des yëpp ñu duñu am ndox te du tere facture yi dafa seer a seer sama gaa yaa ngi nii ñëpp mën nañ maa témoin jigéen ñi pexe mu nekk ñu ngi koy def pour am ndox mais dara sottiwu ci dara dara sottiwu ci courant moom waxaale ma ko courant baa ngi nii ci suñu wet 5 kilomètres rek defe naa motu ko buy sàmb gii jigéen nañu lool mais wax dëgg fi ci yàlla ba léegi mënaguñu koo am làmp yii di tàkk fii sama waa yaa ngi jël waa TFM lamp yi di tàkk fii du courant groupe mooy tàkk ci sama ginnaaw lamp yi tàkk ci dëkk bi du courant solaire la def ay débris pour di ko jéem ca jamono neexul loolu kon benn ci wàllu yoon moom waxaale ma ko. suñu commune baa ben benn mètre godron amu fi ci commune mi ngi quatre villages amul donc mooy fa la commune bi amul mètre Godron, boo fay dem da ngay teggi boo yeggee boo solee yére bu noir nga sol donc ala yéen ay responsable nekk fii ci commune bi Pape Thier ngeen jàppalante li wajhillaahi taala man donc nee naa ci ay groupe politique laa bokk naam du ma politicien mais ci groupe Cheikh Sall yi ci laa bokk wax naa ko fa lu dul benn du ma ñaaroon du ñaaroon jigéen ñaa ngi nii ci seen kanam laa doon taxaw di politique fii di wala di jàppale Cheikh Sall comme nee naa du ma politicien mais donc chaque jour saa bu ñu ma gisee dañ naan mu waaw ana sa waa ji bopp sa waa ji ne yaa ñu digoon lu nekk wax nga ñu ko Cheikh Sall wax nañu fi lu ne mais ba tey dara sottiwul keroog wax naa ci groupe bi ma ni affaire du Cheikh Sall képp mais mboolem euh, responsable politique yi nga xam ne ñu ngi ci dund nañu taxaw ci commune bi jàpp ci affaire yi mu sotti Papa Thierno yaa ngi fi Bara Ndiaye mi ngi fi Cheikh Sall mi ngi fi. bari nañ ay leader politique ay miiru ñi mi ngi fële euh, dëkkam ba fàttali euh, miiri na Ndakaar foofu la dëkk. ma góor kan mi ngi fii Daaru Xuduus nga xam ne ñun ñii ci la ñu bokk mais ba léegi amaguñu dara loo xam ne sotti na wax dëgg fa ci yàlla responsable politique yi nekk fii yëpp APR la ñu bokk. fii kenn xamul fi beneen responsable boo xam ne ku am tur la koo xam ne danaa yeewi askan bi la bokk wala danaa PDS bokk wala danaa PS la bokk ñëpp la ñu bokk mais ba tey wax dëgg fa ci yàlla gisuñ suñu bopp. Euh, ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di am mbégte mu rëy ci teewaat fii tey ci Kër Assane eh, ci suñu boroom mi ñu kàttanal ba ñu fekkwaat ko wér ak tal ñu koy doole santaat bu baax di sant nag kilifa yi ne ci dëkk bi yépp commencé ko ci borom dëkk bi suñu bàyyi waseenu tey góoram bay togal ko fi ak imaamu jàkka ji ak président Daouda mi nga xam tey ànd defar Kër Assane Mbaye moo ne ci kanam ànd ko jeunesse Kër yépp ñu sant leen gërëm leen ndax seen taxawaay refar na trop ni ko ñëpp waxe rek dëkk bi boo fi ñëwee xame woo murit xame woo tijaan xame woo laayeen xame woo xaadir ñépp ànd nekk benn kon loolu lu am solo la ñuy nuy nag bu baax conférencier bi nga xam ne tey Moy serigne babakar Mbeng serigne babakar ñing lay nuyu di la jox suñu nuyoo nga tegal ñuko suñu maam morjo waye di nuyu wa njobu da yeb di nuyu serigne Mudu Mbeng mi nga xam ne oustaz mom tamit sa sune ne buy ñëw yéenay ànd ak da ya yeb di nuyu aussi tàggukati yantir sallallahu alaihi wasallam ñi nga xam ñom nga andal ane bu nek ñu and ak yow te su ma jëlee kàddu su ne moo xam ne ñoom ñoo tax réew mi am jàmm ndax sëriñ Abdou Samad bu sëriñ Soy bu moom ko waxoon ni ma boo gisee réew mi am jàmm tàggukat yonent bi la kon ñoom yal na yàlla guddal seen far wéral seen cër ndax li ñuy def am na solo trop di nuyu waa dëkk bi yépp nag kilifa yi fi nekk yépp bàyyiwuñu kenn bàyyi tafaa ngi fi bàyyi geet sëriñ ab du Mbay Amadou Mbengue suñu xalifa ñoom Abibu Alaaji Malick Moodu Mbay xale yi fàttewuñu kenn ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ah di wax ni may nuyu Ibra léegi ci message bi nga xam ne mooy yóbbante bi nga xam ne moom la ma xale yi jox muy missage boo xam ne yaakaar naa ne yàgg nañ ko wax fii te it kuy seetaan télévision yi xam ni li nga wax man ñëpp luuma ci dara heure bu ma jàkkaarloog président mooy li ma koy wax ndaxit wax deug nit bu fekke da nga and ak mom mu teg la ci wetam ngay wacc ci terrain bi diko xolay deug wañewul dara te li nga wax lepp deug wër la yakar na ne conseil ministre bi passé Thiès conseil présidentiel bi jël na fa cadre président ngi tok ak membre gouvernement bi yépp kenn wul ni la ko ko waxee parce que dama ko ni may fatali jaay ci mbeng ak bu Gueye Touré mi nga xam moy président départemental bu tiawone ak meeru daaru xuddoos meeru ngaay ba ci meeru meewaan man jàpp naa yi ñun communes yi liñ manqué dafa bari trop te dañu dese taxaw ci wax li xew ci commune bi parce que président tam nit rek la am na loo xam ni xëy na buñ ko waxul dëggantaan xëy du ko xam mais président mi ma xam ak ni mu yéenoo askanam jàmm am na la su ko yëgee dina ko saafara ndax président mooy koo xam ne bi mu ñëwee ci réew mi nag tey lépp luy jafe-jafe askan wi ci lay taxaw heure bu xëyee ndox mii kat ngeen di wax tey yaakaar naa pëlen demal na ba France dara amut fa woon yàlla dogal ñu woote ci pétrole ak gaz bi ker boo fa jëlee kàddu damaa ne ndox moom moo mu boole ak Serigne Mbaye Thiam ñaari forage ba ma yeggeet ñoom ñoo ma ñoo woo waa Louga ni ma comme yéen amagu leen forage te di ngeen amul ndox fii taxaw nii nañ jël forage fi nekk jox ko waa loolu yaakaar naa Bada sàmm mu may dégg te xam na ni noonu la fa demee woon ñu indi forage ba dugal ko pëleen 2023 bii lañ moo xam ne ma daal di jox si deuxième forage may fàttali ministre bay Mbaye Thiam ni ko li ñu waxante woon muy ku baax moom it ak directeur OFOR incha allahu rabbi 2023 jot na deuxième forage bi moom la ñuy xaar ni ko xale yi waxee dëgg la courant bi tam mi ngi nekk ni saramet wër ñu mais benn courant amul fii loolu dëgg la gu wér-wér yoon wi. ku ne xam na ne ay jafe-jafe la yaakaar naa ni MDL bi nga xam ne mooy industriel bi gën a ëpp doole ci ñëpp bokk na ci industriel yi ëpp doole ci réew mi ay milliards di fi génne tey bu ñu jëlee Abrara def ko fii mu dem jogo di fi jaarale seen oto yi posé yi di jaxasoo poussière bi nit ñi di accidenté di dee loolu lu président war a seetlu war la te MDL ay milliards di fi génne kon tey bu ñu manqué ndox pourtant MDL booru tëli bi yépp ay forage lañ ko def te dañ ko encastré mais loolu man saa su ne ma demande MDR loolu pour loolu ñu def ko suñu tool yi nga xam ñoom lañ dagg jaarale fi seen raay bi ak seen tëli bi dëkk bu dañ jël fa ñaari nit xëy na sax tane na waaye suuf si mun ñu mun ñu ko fay kon kay li gën a gën a jaaru tey ndox mi ñu ubbi ko xale yi nga xam ne ñooy jeunes yi nekk fii senes bi ak ñi xam dañuy liggéey mën a am ndox di bay noor di bay nawet ndax fii naaj am na fi suuf si ak ndox mi neex na su boobaa yaakaar naa ci liy développé réew mi ci lay bokk mais bu ñu jëlee teen yi encastré ko xaw ma kañ lañ ko jëmale kajoor toog bu ñu amee ndox tey bu subaa duñ ko am loolu lu métti la man li ngeen wax dëgg la bu wér te son excellence le président mag sàll dina ko dégg su ko su ko déggee dina ci taxaw jàpp naa ni balaa weer yu décidé woon kajoor moom problème mu ndox ak problème mu courant ba ci case de santé yi ngeen wax. yaakaar naa ne loolu président dina ci teg loxoom te insha allahu maa ngi waxtaan bërk démb ak suñu xarit ministre agriculture muy Aly Ngouille Ndiaye muy ku yàlla baaxal ma di ko wax ni ko euh, dañoo taxaw ni pencum koom-koom yàlla xool ñu boole ma cariñoo ko jot naa fi ñëw miir na ndaxaar ma ñëw ni leen Kajoor day dëkk yépp ñooy bénéficié wu ci chômage ba mu des Kajoor parce que Kajoor man gisuma fi machine buy buy musuma gisuma fi tracteur Masin buy ji ak ak bay suma ko fi budul amasin yu njëkk yi ak salat yu yi baye fas dafa xewi parce que rew mi daf ko dépasser kon lol tay monsieur le ministre Aly yow suma xaral nga te ku bax nga ñi ngi lay ñaan kadior muy commune Mewane commune Daaru Xuddoos nga dimbali len ci semence bi nga xamne téméré milliards yi nga xamni président tek na so loxo kadior na ci seen bop ndax fi ke ay kilifa nga fi xamni ak i baykat yoo xam ne xamuñu dara lu may jàng alxuraan dem ci tool yi ñooñu nag ku leen dimbali sa bopp nga dimbali te réew nag mënut a avance ca liggéey amu fa. kajoor ba ñu noo liggéey mais dañoo amul lu ñu lu ñu liggéey bu fekkee ni boo doon si taw amoo loo amoo fas ngooñ amatul na dara amul mais loolu ngay bayee. kon monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye ñu ngi lay talal loxo ci commune Mewane ak commune Darou Khoudoss nga fàttali suñu mbokk kajoor yi monsieur le ministre Mbaye yow tam ñu ngi lay talal loxo ci dox wax naa ko fi waxati ko fi waxati ko fi monsieur le ministre Mansour Faye ñu ngi lay talal loxo ci yoon wi wax nañ ko yoonu Mewane woowu wax nañ ko fi maintes reprises defe naa ne Mewane ba Ndiobu dayaa foofu fu ko gën a jekk am ab goudron ci àdduna bi amul mais yoon wu day waar la kon loolu yaakaar naa ne monsieur le président de la République yaakaar naa ni ah bëgg nañ nga gën a soññiwaat gars yi ñu taxaw ci pour ñu mën a defar Kajoor ndax kat day dëkk boo xam ne si du ñu dëkk buy sànni xeer kii wax na ko sànq mën naa ne fii opposition amu fi de ñëpp Macky Sall lañ gëm moom lañuy jàppale wante nag mbir day dema dem ba nga xam ni doo xam sax lan lay nuru kon ñu man lu may sant leen ñaan président Macky Sall aussi mu dimbali di gërëm tam soxnaam soxna Marème fay di ko talal ci suñu jigéen ñu baax ñi nga xam ni vraiment ñi ngi fii di ay njaboot yoo xam ni ñu jar jàppale lañ di wax abisay mi nga xam ne moo yor DER femmes yi nga xam ni liggéey rek lañ xam amuñu benn financement bu ñu soxlaa financement dañuy dem ci mutuelle de santé yi li ñu leen di tax dafa bare dañ teg fi DER pour ñu jàppale jigéen ñi abisay di sama jigéen sama lépp ma koy talal ko mu jàppale commune bi. te yaakaar naa su soxlaa commune bi man su ma woowee sama xarit la dinaa ko teg ci yoon woo xam dina mën a dimbali jigéen ñi parce que ñii dañoo jar jàppale jeunes yaa ngi nii defuñu dara liggéeyiwuñu dara bu nawetee da ngay ñëw mu taw tey boo liggéey taw. te fi mu nekk nii jamono dafa avancé bu ñu amal ndox dañuy bàyyi noor di bàyyi nawet su ko defee réew mi dund di dafay yomb pétrole ak gaz macha allah ñëw na mais pétrole ak gaz toujours dama koy wax su ñëwee tey géej gi nga xam tamit ñun moom lañ aman kese yaakaar ko mu le président ñu ngi lay waxaan ne pétrole bu ñëwee il faut ñu bàyyi xel bu baax aussi ci ci mbokk yi nga xam ne mbokk suñu mbokk jaaykatu jën yi nga xam tey man maa ne seen kanam parce que tey solution bi rek mooy lenn. nañuy def ci aquaculture muy mbayum jeen mi mbayum jeen mom fi ci kadior gi rek lu ko fi gëna a ndox dafa am nañ ñu jàppale ci financement ak ndox encadrañ ñu defal ñu formation yi xalé yi liggéey fi jeen bo xam ci di do dem fenn di ko wuti fenn da nga naaw jeen bi mo dàq jeenu geej fi may wax ni tay conteneur yaangi ngi bàyyi koo Chine di bàyyi koo Corée di ñëw fi ci marché central au poisson depuis ñetti at ñi ngi ñëw amna conteneur bo xam sa ñu sama tour lay ñëwee te nañ koy bayé fofé lu ko raw man nañ ko bayé fi kon état bi na siggiwaat xoolaat bu baax naka lañuy def ak culture bi comme pétrole ak gaz man li ma wóor li ma gis man conseil économique social environnemental ñu wan ñu ko ci ay machines yoo xam ne ñoo war a indi pétrole bi ak gaz bi suñ ko taalee njanaaw yi biir géej la ñu jëm kon monsieur le président il faut ñu jàppale nu suuf si yaatu na naaj bi am na te ndox mi neex na kon kay monsieur le président ñun am nañ solution tey li problème bi ñu amoon tey dëgg dëgg dëgg mooy problème mu aliment aliment bi mooy li jën yu dundee parce que bu njëkk dañ daan wax ni euh, aliment jën mënoo jël jën bu ndaw di ko def aliment léegi yàlla dem dimbali am nañ ay xale yoo xam ne dem nañ bitim réew ñibbi Sénégal organiser ay industrie yoo xam ne bututu jën muy dese yi ak waa Sentoor yi moom la ñuy def aliment bi dit ñu jël jën bu ndaw bi di ko def di ko def kii loolu nag kon dañoo wax dañoo wax monsieur le mu jàppale ñi nga xam ne pare war nañ pour def loolu ku mel ni ndam tey fu mel ni ndam ndax benn usine boo xam ne ngiru Dakar xam nga lu muy def aliment jën te tey yàlla dimbali na ko muy jeune bu jàmbaar ñu sant nag président parce que teg na ko loxo ba fi mu nekk nii bu démarré usine bi cent 150 tonnes par jour lay am. loolu nag su ko su fekkee ne jàppal nañu waa Kajoor encadré leen yaakaar naa ne ñu am aliment bi am ndox am lépp su boobaa ay toolu jën day am comme ni ñu defee toolu gerte ca lu waay am ci jën di nga mën a jaay fi bay jaay bitim réew kon monsieur le président Kajoor yomb naa dimbali yomb nañoo jàppale. ñom soxla wuñ dara lu may ku len jappalé ci lu ñuy liggéey kon monsieur le président ñing lay talal loxo di sante industriel yi nga xamni ñing ci biir ma ki ñing ci biir réew mi yépp parce que réew ta mën ta dox ci industriel amul may sante ñu melni mohammed Mouhamad Timpes ñi nga xamni aussi xamul ñu def barki dem dañu dem ci camp bi fi ñu prisonniers yi jël fa lu mat 80 personnes di len liggéey lo bu ngone garde yóbbuwaat len su weer dee ñu fay len parce que ñoom dañoo bàyyi xel bu baax ni ñu ñu téye ci kaso yi am na ñoo xam ni xay na erreur lay moo leen fa te amuñu lu ñuy dundee waaw kon ñuy sant ñooñu Matim Bass ak Moussa Ndiaye mi nga xam ne mooy jëkkëram ci acte bu naaw boo xam def nañ ko muy jël ay prisonniers di leen liggéeyloo ci seen usine bu ngoon jotee ñu delluwaat leen kaso ba bu subaa ñu xëyaat indi leen ñu leen di jox añ di leen jox reer di leen jox lépp di gërëm ñi nga xam ne aussi ñu ngi ci presse bi di jàppale acteurs yi loolu il faut ñu wax ko ndax Sénégal tey Kajoor boo demoon tey tefas yi ay waa Kajoor kese ñoo fa nekk. ndax xam ngeen benn minute télé képp li mu jaar ñu mun ñu koo fay kon bu ñu télévision bi jógee Dakar ba fii di ko di ko jël di ko yóbbu loolu ndimbal la moo xam ne le président Youssou Ndour moo ko def mais le président Youssou Ndour nag dafa yàgg ak askanam waaye yàgg ak sénégalais bëgg sénégalais waaye sénégalais bëgg seen bopp. kon duñ man lu may sant leen encore di santaat Sénégal waa leen ñaanal yàlla yàlla yàlla def leen ay mag di ñaanal mag ñi ñi fi feebar ñëpp yàlla na yàlla wéral leen waaye di ñaan secteur bi ma nekk mu secteur pêche waaye également di ñaanal suñu ministre de la di ñaanal sénégalais yëpp di wax daal ni maa ngi gërëm waa kar Assane yëpp di gërëm samay soxna ñu ngi nii toog sañta ba jekk kon lu man ñoom tam lu may gërëm leen ah gërëmel sëñ Babacar sëñ Modou ñu ngi leen di gërëm ah di gërëm xale yi ndax li ñu def nii dafa am solo maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu tax képp jangal nga sa dom alquran yegal ni defal nga ko lo xamni yiwu aduna la yiwu alakhir motax tay ki ngeen tuddé bis bi li ngeen ko defal ni lenn la ci li ngeen ko dolle ñukkal moy lu tuti la ndax ki nga xamni yow wajur wu nek jangal sa dom yow la war nga fayal ko mu jàng maanaam nga jàngal ko yow la war soo ko munta jàngal danga war a génn ci sa poos fayal ko mu jàng loolu lépp nag kala ci wuutu defal la ko amoo payam kon nag sëñ Saaliw yal na ko yàlla dëgëral ca du ko réccu nag ndax boroom xam-xam dañu wax ni afdalu ma yutla wa ma yuqaalu qiraatul quraani inda annaas adduna yépp li fi gën ci li ñuy wax li ñuy jëf li ñuy jàng mooy alxuraan soxla na mu préparé benn génération boo xam ni mboolem problème yi am ca société ba génération boobu ñoo koy régler moo xam problème boobu problème mu ijtimaaiya la maanaam mbirum société la ñépp ko bokk walla ci wàllu koom-koom la wala ci wàllu politique lu mën a doon faaw ñu préparer ñoo xam ni ñoom ñoo ko mën a def pour loolu am nag faaw ñu am ci jamono bu nekk ñu préparer koo xam ne day mel ni Seydina Omar ci taxawaayam ci wàllu diine am itam koo xam ni dafay nangoo sacrifice ci diine ku mel ni Xaalid ibnul Walid waaye am koo xam ni itam diine da koy taxaw ci xam-xam ku mel ni Salahuddin al Ayyubi bu ko defee loolu mënul nekk mukk lu dul ni parents yi dañoo xam lan mooy seen responsabilité papa yi ak yaay yi faw ñu xam lan mooy seen responsabilité ci doom yi faaw ñu xam ni doom sabab la ci papa dugu aljana wala sabab la ci papa pour mu dugg safar parents yi faaw ñu xam loolu ndax yàlla subhanahu wa taala teel nañoo wax ni yaa ayuha amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi nga xam ni yéen a wax ni da ngeen a gëm yàlla na ngeen dawale seen bop safara dawale ko seen njaboot dawale sa bop ak sa njaboot safara mooy d'abord yow parent bi nga yaru yar sa njaboot ci lislaam loolu nag mënul am lu dul ni yow waajur bi danga nekk koo xam ne référence nga ci sa doom ci mbaax goo wane boo ko defee rek yàlla man la sàmmal ba li nga bëgg ci sa njaboot nga mën koo am moo tax yàlla subhanahu wa wax ni ña nga xam ni dañuy ragal ëllëg buñ génnee àdduna njaboot gin bàyyi ginnaaw ci yar bañ leen yaroon wala éducation ban defoon ci ñoom jukko yu rafet ya buñ bañee ñu ñàkk ko yàlla ni ragal leen yàlla rekk su ngeen ragalee yàlla loolu nga def ci njaboot gi man yàlla maa la koy sàmmal sa ginnaaw moo tax mu ni wal yaxsa alladina law taraku min xalfihim surriyatan diaafan xaafu alayhim mu ni fal yattaqullah ragal yàlla mooy base bi bu ko defee nag kon pour nga mën a am doom joo xam ne danga koy yar idike ko ni ko lislaam bëggee faw yow parent bi nga tànn ndey joo xam ni moo lay yombalal loola ndax boo amul soxna su baax doom ju baax daf lay jafe moo tax ñu ni kon ca tànn googu warul boroom kër rekk ni boroom kër di tànnee jigéen ju baax noonu la jigéen itam wara a tànnee góor gu baax yonent bi sallallahu alayhi nag ni tànn boobu suñ koy def nañ ko def ci fondement diine nga jiital baasu diine bi ndax mu ni diine ak jukko bu rafet mooy li nu soxla bu fekkee ni danga tànn jigéen mu am diine amaale taar amaale wu askan amaale alal muy sa sens mais alal lu mu bari bari wala taar lu mu rafet rafet ci àndut ak diine amul njariñ ndax mag ñi dañuy wax ni lu bees rafet lu màgget ñaw te jigéen kon boo ko takkee ngir taaram bu fa taar ba nekkatul nga ba ko kon tànn jiitalal diine moo tax askan wi itam dafa am ñoo xam dañuy wax dañuy takk soxna ngir askan te askan lu mu rëy rëy ka melul ni askan ba askan gam askanoo ci askan bobu amul njariñ motax way kat ba waxoon ni kun imnu man sita lan tasuda min nasabin illa bi ilmin wa taqwallahi wal adab baye kulan kula neex jur nu neex sant muno tedd mukk ci saw askan lu dul ni dang cee boole ragal yàlla ak xam-xam ak yaru loo mën a am ci amoo lii amoo dara yonent bi nag kon ni bu fekkee ni amul alal amul askan kon fa yekk fii kat diin wal xuluq na la diine doy jukko ju rafet doy la beneen bi itam pour ñu mën a mucc parent bi ginnaaw boo tànnee doom eh, ndey ju baax nga jàngal sa doom nag diine jàngal ko diine jàngal ko mbaax ndax doom ji yàlla dala koo dénk ca jamono bi mu la koy dénk dafa set wicc dara taxu ci nga war a nekk koo xam ni nag bis boo koy delloo yàlla set bu raw ba mu la joxoon nga ci war a def loolu nag pour mu mën a am faw nga jàngal sa doom diine boo ko defee rek am texe àdduna am texe àllaaxira ndax yi ci des métier la dafa am yoo xam ni mi ngi mel ni njàngum tubaab tey du obligation ci wàllu diini mais métier la boo xam ni kenn ku nekk war nga ko jàngal sa doom ginnaaw ba nga ko jàngalee alquran ba pare ba nga xam ne am na baasam nga doog koon a wutali métier booy wutal sa doom métier nag boo la neexee nga dugal ko école bu leen neexee nga yóbbu ko ca mu dem jàngi sëfoor wala mu dem jàngi beneen métier kon loolu mooy war waru parents yi ci li am li xew ci yàqute bi parents yi loolu mooy seen wàll mooy ñoom d'abord ñu tànn ndey ju baax bu nu tànnee ndey ju baax ba pare bu leen ci yàlla may njaboot ñu fexe ba éduquer ko mais éducation boobu tegu ci lislaam bu tegoo ci lislaam nag lépp dox kon parents yi loolu mooy seen war-war ci loolu muy benn deuxièmement bu parents yi defee li leen war ci doom ji ba pare ndax parent bi jukko ji leen ko defarloo jukko lan la defarloo yow baay ak ndey jukko ji rafet lan la defar parce que jukko bu rafet boobu ngay def sa doom mooy tax bu génnee mu xàmmee li mu moom ak li mu bokk ak lim moomut su parents yi defee seen devoir ba pare nag war waru nag sëriñ doog dikk sëriñ itam moom li soxla ci moom mooy dafay def tarbiyatu ruux kee dafay yar ci wàllu jukko mais sëriñ dafa war a yar sa ruux ba nga xam ni la sa parents yi defoon moom mooy continuité ñu yar la ba nga xam ni doo sañ a def lu yàlla tere loolu mooy war-waru sëriñ muy benn mais tamit ñu xam ni itam sëriñ du obligation tamit ci lislaam waaye nag ñàkk ko amit wóorut ndax ñépp xamuñu yoon moo tax waykat waykat ba waxoon ni yasxabu sayxan aarifa almasalik يقيه, يقيه في تاريخه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوزل العبد إلى مولاه فاونغ ووت سيرين سيرين بو خامني دا فا خام يون بي ندخ تاريخا يون لا بو جيم تي يالا مي نك بو ووت سيرين بو بور بولا تك فوفو نك فاونغ تانكو سيرين بو خامني خامنا يون بي باسكو yàlla daf ñoo tere ñuy làmbatu ak di jaar ci ñal yi hmm. dañuy wax nañ jaar ci yoon hmm. boo bëggee jaar ci yoon nag dangay wut ku ko xam fa tabaarakallaahu sëriñ moo day faral di wax ni mën hmm. a waaxu xamu yoon a ko gën mu ni xamu yoon it tegu ci yoon a ko gën boo xamee yoon ba pare teguwoo ci amul njariñ waaw kon sëriñ boo xam yoon bi ngay sëriñ boo xam ni dalay jiitu ci yoon bi li ciy lore lépp mu teggil la ko yoonu aljana tax ñuy wax nag sëriñ boobu mooy sëriñ boo xam ni soo ko gisee rekk su la waxul dara sa xel dem ci yàlla saa yoo ko gisee yàlla ngay jëkk a xalaat soo ko gisul foo man di nekk moom ngay xalaat ba tax doo ñimee mooy yàlla sëriñ boobu mooy sëriñ bi nga xam ni boo àndeek moom dina mën a jàpp sa loxo ba teg la ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mën la jàllale ci yàlla lu dul loolu rek doo dem bu dee nag ci tiijaan tijaaniyee ñu baal ñu tuuti ñu pose foofu boo fekkee danga nga ci bëgg a tànn sëriñ dafa am noo ko war a tànne hmm. boo bëggee jël tarixa it dafa am noo ko bëgg a jële noko wara jëli borom xam-xam ba borom durratul kharida dafa wax ni fa in rumta axsal wardi fakhtar muqaddaman taqiyan izni isni al ajilla bu fekke da nga bëgg a jël werdu tijani na nga tan ki koy jëlé ak werdu bo bëgg jël sax ak sëriñ bo bëgg àndal loi bii daf daf daf lay daf la concerné li tax loolu parce que bëgguñu nga ànd ak sëriñ tey dem ba suba nga gis ci moom jukko yu la doyut moo tax ñu bëgg nga tànn ko tànn googu nag moo xam da ngay def istixaar wala nga laajte ko xam nga tànn sëriñ subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin